لكني ما لم يقيه عني وقال لي بقاؤه بالمن كرامتي كتاب ومن انتفعني به إلى الجنان مصطفاني أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki Sénégal mbokki Jolof mbokki Touba dëkk bii ñu toog nii mooy dëkku maam Maharam Mbacke mi nga xam ne mii moo meññ maam borom Touba radiallahu taala anhu waaye meññaale it maam Alaaji Malick si radiallahu taala anhu waaye meññaal itam maqaali jaxate kada kon mën nañu wax ne maanaam maam maaram kilifa diini ci réew mi yëpp ci moom lañu ñu ko ci moom lañu cosaanoo ko defee nag maam maaram Mbàkke fii ñi ngi wax ne mi ngi fi feeñ ci ay atam maanaam atom ay xësin ay xësin ci arab maanaam muy junni ak téeméer ak fukk ak benn waaye boo ko toll tollalee ak atom tubaab bi mooy 1692 mi ngi fi bàyyi ko itam atom yërsin yërsin yërsin maanaam muy 1000 yu teg 210 waaye soo ko doo toll ak atom tubaab bi mooy 1789 waasa mi ngi dund 99 juroom ñent fukki at ak juroom ñent tolok pour yalla yi amna nak juroom ñaari doom yu góor ak ñetti doom yu jigéen moom ma fari mam ma ara mbacke amadou fari mata mbacke cerno fari mata ñoo ñu seen yaay ku ñuy wax fari mata sek mo leen jur fari mata sek nga dëkk ci njiw ci gi ci jolof amal ku ñuy wax ibrahima mbacke ak soxna mbacke asta ak soxna Mbacke ak soxna Asta Mbacke ñooñu seen ndey mu tudd soxna Awa Ñang am na itam ku ñu wax amul soxna Bousso ak say soxna Bousso ñooñu seen ndey mi ngi dëkk Mbuso bi ci Jolof am na ku ñuy wax Mahabdu soxna Bousso Mbacke kooku ndey mi ngi tudd mi ngi tudd soxna Mbay dëkk Mbayeen Cas di ci Jolof ba léegi amit buur gu tedd gi nga xam ne gi mooy Abibulaay Balla Aysa nga xam ne moom meñ ma moom ma ma ma ma ma ma borom Touba muy góor gu mag gi moom ndeyam mi ngi tudd soxna ay Aysa Kan mi ngi dëkk Kaneen Njuru amaat ku ñuy wax Amadou Xari Mbàkke ndeyam mi ngi tudd Xari Jóob dëkk Njóobeen ñooñu mooy doom yi nga xam ne mooy doom yi maam maam Maara Mbàkke yi so bëggee wax nag maanaam diggante gi ni mu bokkee maam ma maam maam borom Touba mi ni mu bokkee maam Aji malik ni ma jaxate kale da ngay wax maam Mbacke maam Balla Aysa maam Mor Anta Sali maam mo maam borom Touba Xaadimu Rasuul waaw maam Maaram Mbacke maam Balla Aysa maam Mor Anta Sali maam borom Touba Xaadimu Rasuul kooku mooy genn wet gi nga ne maam Maaram Mbacke Amadou Fari Mata Mbacke mo jur ku ñuy wax Mati Mbacke Mati Mbacke mo jur maam Ousmane si maam Ousmane si mo jur Aji malik si ba tey da ngay wax ne maam Maram Mbacke mo meñ ku ñuy wax Thierno Fari Mata Mbacke Thierno Fari Mata Mbacke meñ ku wax xari Mbacke xari Mbacke meñ ku wax Ngañ xari Ñang koku mam ñanga sant kooku jur maam sefitu Ñang mam sefitu Ñang mo mo jur Aji Abdel Sis bax malik mi nga xane mo fi joge barke dem maam Maram Mbacke mitam mo jur ku wax Soxna Mbacke Awa Ñang moom lañ jox njàmme collège mu am ca xaali amar soxna Mbacke ak Ibra soxna Mbacke ak amadu Ngurel soxna Mbacke ak Absa soxna Mbacke Absa soxna moomu nag la jox ma kala mu jur xaali ma jaxata kala kon ñooñu ñun lañ bokkee maanaam ci maam Maara Mbacke kon mbokk yi ni ñuy seetaan danañu déglu téere bii Serigne Moussa Ka mi nga xam ne mii ku ne xam na ko ci réew mi moom moo ko taalif ñu wooye ko matlabul haajaati ñu ko soxla mën nañu koo sàkku ji matlabul haajaati fi ne si ni ani seeqi wasaw jaati mhm. ci maanaam non seulement maanaam doomi sëriñ bi ak mhm. soxnaam yi mhm. ak xëy na sax cemut gëm maam jaara a ah, su ko defee maanaam bi mu waxee bi onze onze bi la satan jiri moom moom moom moom maam Moussa Ka daf na lii moo di càllalaak Sëriñ Tuubaa dañu firi ko ci wolof li tàmbalee ci maam usmaan Mbakke ma nga xam ne moo njëkk nekk wolof moo dikk jolof moo jur ku ñuy wax maam Seyid Mbakke mu jur maam Mohamadul Kabir mu jur maam Balla mu jur maam Maaram moom mii ma lay wax nag maam mu njëkk ma bëgg te maam Maaram mii maam moo mii ma lay wax nag moom ma yoro Mbak ma yoro mi ko jur wax nañu ne ak wattoom alxuraan ni ngi sababoo ci toog déglu kuy wàcc alxuraan ba mu àggalee rek mu daal di wattu alxuraan. Mhm. maam maaram nag moom la ñuy wax Muhammadul Xayri lu mooy turam Muhammadul Xayri lu tudd ku ñuy wax xaram ñang moo ko jur moo tax ñu naan maa bi mhm. jigéen la mhm. ñuy wax xaram moo yaayam wax nañu ne mi ngi feeñ atum ay xasin ci mille six cent quatre-vingt-quinze waaw mi ngi fi bàyyi koo tam atum yër sin waaw maam maaram nag moom moo jur maam Balla Aysa mu meññ maam Mor Anta Sali mu jur meññ Seexul Xadiim mi nga xam ne mi tubaarkàlla moo waral màggal gi yéen